قنباحنا آه بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله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 te kenen ku mom da nga sant yalla ci ben dimension a yenen dimension euh, tambali nañ yalla ci yermandem dañ ñoo posé won de question yo xamanteni ben question bu ci euh, relative ak alhamdulillah ñu tàmbali ko ñaari weer yàlla subhanahu wa dimbali ñu tey jii ñu war a tëj liggéey bi nga xamante ni moom la ñu tàmbali woon ñu sant yàlla bu baax mi ñu xiir ci ñuy gëstu lu mel ni ndax am na ñeneen ñuy def leneen di utilise réseaux sociaux yi ngir yeneen i fin ngir yeneen i taxawaay ngir yeneen i mbir waaye ñoo ngi sant yàlla mi ñu xiir ci ñun ñu ñuy wër yàlla di wër yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wër ngeerumul yàlla di wër ngërëmu yonent bi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam di jàngale yàlla di jàngale yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mo melni tay ji ci lañuy tejj yefi li ñuy wax ni khitamuhu miskun ta lolu ñong ko doon junj waxtane nañ ko moy wa aljana suñ nané sen cocktail yi cocktail bu ñu naan fin wu cocktail ba xet ga misku lay doon motax yàlla ne khitamuhu miskun wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun ñii góorgóorlu ñëpp lii moo waral nelawatuñu ñiy góorgóorlu lii moo waral ñuy def ndigal yàlla yi di bàyyi ay tereem kon mbokk yi di ngeen ma may ma nuyoo sant yàlla mottali ñaari question yi desoon ci aljanna muy tey ci tëjte bi su ci fin bi ngeen may ma incha allah ma reprendre ko en français tënk ko rapidement su ma paree ma ñaanal te remercier sama gaynde yi nga xamante ni fu ma toll ñoo lépp lu may liggéey ñoo koy bokk ak man ku mel ni Racine Ly moom Abdoul Racine Ly ku mel ni Cheikh Ibrahima Diop ku mel ni Pape Ndongo Doucouré ku mel ni Mouhamed ja ku mel ni Mbaye Touré ak seeni jigéen yi nekk fii ci France soxna Ndey soxna Khady soxna Binta ak ñi nga xamante ni ñëpp dañ ciy jàpp ci liggéey bi di di bàyyi xel euh, que le coordonnateur général du mouvement muy sëñ Baye Fall Ndiaye su ma ko tuddee tudd naa mag ñëpp tudd section yëpp tudd groupe d'amis yi nekk ci biir Safina yëpp waaye tamit di bàyyiwaale xel euh, ki nga xamante ne mooy Ousmane Lo ci taxawaayam ci page internet bi ak ñi mu àndal ñëpp ak ku mel ni Makhtar Mbaye ci taxawaayam ci page WhatsApp bi ak ak liggéey bi ak Ndiogu mboot mi nga xamante ni mooy coordonné liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy def ci lépp luy internet ci site euh, internet bi njegen point com ak ak euh, site internet bi ak euh, page YouTube bi euh, di ñaanalaale tamit di bàyyi xel bu baax suñu mbokk sëñ Karamba Gassama mi jiite cellule scientifique bi di ñaanal tamit tey bàyyi xel suñu mbokk Mamadou seen mi nga xamante ni moo jiite cellule de communication bi ak infographiste yi ci seen bopp sëñ Babacar Cissé sëñ Pape Massa sëñ Boubacar Ndiéguène sëñ Omar Dukaara ak ñi ñu àndal liggéey bi yëpp ñoo ngi leen di ñaanal yàlla incha allah dinañ ci ñëwaat ci bu gën a yaatu suñu yàlla dimbalee euh, incha allahu taala euh, sant nañ ñëpp ñi commentaire ñi euh, résumé waxtaan yi ci en en même temps ku mel ni sëñ Cheikh Dieng ku mel ni Pape El Mar Diop ku mel ni Ibrahima Diop ku mel ni Racine Ly Mouhamed Dia. Euh, Tamsir Diop bu Espagne euh, Amara Ndiaye Amérique euh, dégg nga ak ñooñu nga xamante ni c'est des inconditionnels de notre rencontre quotidienne bi ñu am ci réseaux sociaux yi yàlla na fay leen yiw bi jaahi seydina wa nabina moolana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee incha allah ci loolu la ñuy jëm su ko defee bu subaa ci la ñuy def tëj teegu semaine internationale bu alxaaji Mouhamed Ndiéguène bi di ngeen a am nag invité surprise incha allah mooy sunu mag sunu sëriñ Cheikh Ahmad Sall Ndiéguène incha allah bu subaa moom la ñuy bokkal plateau bi ngir euh, mu barkeel jotaay bi euh, tëjal ñu ko incha allah taala yal na yàlla barkeel yëngatu yëpp bi jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngeen ma may tamit ma nuyu sëñ Duudu Njaay nga xamante ni wóllëre la ci sëñ Bàcc Sekk sëñ Duudu Njaay askanam yëpp ca Jaxaaw askanam yëpp ci Grand Thiès askanam yëpp ci cité euh, Lamy waaye njëgëneen lañu waaye moom dafa am taxawaay bu rëy bu mu am ci famille bi am ko ci neen am ko ci pas-pas ci dogu ànd ak sëñ bàcc di yëngatu ci mbooloo mi di ci def alalam di ci def coonam di ci def yitteem moo tax ñu bëggoon ko ziar ziaraale taalibe yi nekk ci zone boobu yëpp waa kër Amman Mbay Baabu waa kër Alxaaji Jibril Boy tabaarakallahu mbokk mbokk sunu mbokk yooyu ziaraale euh, tabaarakallahu Euh, waa jaxaw yëpp Adja Ngoone Njaay taalibe Maam Alaaji yi nekk foofu yëpp yëpp yëpp ñoo ngi leen di ziyaara di leen ñaanal jàmm yàlla yàlla dooli leen jàmm dooli leen xéewal bi jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngeen may ñu tamit ñu nuyu sunu euh, mbokk moo xamante ne ñoo bokkoon doon jàng ci Ousmane Ngom ak ci lycée yëpp mooy Cheikh Birahim Seck nga xamante ni moom it alhamdulillahi rabbil alamin léegi nii rek laay toog ak Serigne Muniru Al Khalifa muy tudd baayam Serigne Mamadou Seck ci pas-pasam ci dogoom ci ngëmam ci engagement ci ngëmam alxaaji Mouhamed jegen waaye tamit mu ànd kook njabootam yëpp Birahim at mu jot kër Maam Alaaji lay gàmmoo ci ñun lay gàmmoo ren jii tabaarakallahu ñoo ànd dem ba ca saalu mu Muniru dugg ci néegu biiram fa lañ ko fekk nuyu ko ak mbokk yëpp ziar ko seriñ mu Muniru bég ca kontaan ca xam ne moom ci famille bi la bokk ci Ndiéguèneen la bokk waaye moo ngi ciy dox tànkam ñoo bokkoon doon jàng ñoo bokkoon suñu lépp du moom it du tardé benn xew-xew bu ñu am ci internet macha allah di ko bokk ak ñu yàlla na yàlla fay ko yiw ñoo ngi ziar tamit Cheikh Moussa Ciss Cheikh Moussa Ciss du ma ko tuddee yéen mbokk taalibe yëpp bëgg ngeen man wóor na ma ndax moom taax la dëkk doomu alxaaji Alsan Ciss la ak soxna Safiya Sow bu alxaaji Mouhamed Ndiéguène bu Cheikh na Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu fa tabaarakallahu Cheikh Moussa day ko baax day ko yiw day ku taalibe yi bëgg ndax ñoom ñëpp dañuy jël exemple ci moom ci pas-pasam ci dogoom ci teeyam ci dalam ci sellam ci do ci doxalam ci bëggum alaaji muniru ci bëggam mam alaaji ci jeexam ci yonent bi ci jeexam ci Cheikh Tidiane ci jeexam ci yàlla subhanahu wa taala ñoo ngi koy ziyaara waaye duñ ko ziyaaree ziyaare la nañu ziyaare la waale nañu waa tax kaw yëpp ña fa sant Touré ziyaar nan leen ña fa sant Touré ziyaar nan leen ña fa sant Guèye alaaji Cheikh Guèye Karbala El Hadj Cheikh alkaati euh, waaw kër maam dama siis njaboot ga nekk foofu tabaarakallahu waaw kër alhaaji alsan siis waa kër alhaaji ma mafal Diop waa kër maam ndeene Diop dégg nga góor gi Abdul Karim Diop ak njaboot ga euh, ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ziyaara di leen delloo seen njukkal euh, waa Ngéyeen yi ñoo ngi leen di ziyaara alhaaji Omar Gueye al muqaddam na ko yàlla yërëm te dool leeram di ziyaaraale eh, waa Njuufeen njab dafa nekk yëpp taalibe soppee yëpp ñu leen jaar taax yëpp moo tax ñu beral nuyoo sëñ Moussa siis ngir suñ ko nuyoo nuyuwaale taalibe njëgëneen yëpp yëpp fu nit ku bokk ci askanu njëgëneen bokk di taalibe ci njëgëneen foo mënti nekk ci adduna ñoo ngi jël suñu nuyoo di ko teg ci loxo sañ Moussa siis ngir mu jotali ko mbokk taalibe yëpp yàlla nañu yàlla boole jàppale kon tey damay waaxu rek ñu jublu ci tontu question dernière question yi ñetti question yu mujj yi mooy niveau aljanna ak suñu duggee bu biir aljanna lan moo fay xew loolu mooy question yi moom la ñuy tëjee yëf yi su ko defee jotaay bii nii liñ ciy feeñal mooy doole rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo wax yontu yàlla muhammad gis ngeen aaya bi moom lañ lay waxtaan wi euh, euh, jërëjëf Diop jërëjëf Diop incha allah dama bëgg du du duñ jeexale première euh, audio bi su jeexee dans quelques minutes incha allah dañuy connecté waat su ko defee nag duñ connecté waatee Ibrahima képp ku bëgg a dugg nga dugg ku ci am loo bëgg a dolli ci waxtaan wi nga dolli ku am question ci aljanna yu leeru nga leerlu ko ma tontu ku ci am tamit xalaat wala loo bëgg wax di ko ci mën a wax incha allahu taala yal nañu yàlla boole dimbali ñun ñëpp su ko defee mbokk yi euh, euh, tey dañoo bëgg a waxtaanee. dooley rasulullahi ci biir aljanna force rasulullahi ci biir aljanna ci la ñuy xamee ni ndekete aljanna dëgg-dëgg mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo wax yonent bi ne ko fa wa kaana fadlullahi alayka azima wa kaana fadlullahi alayka azima yàlla nee na yonent bi sama ngëneel gi ma def ci yow faveur yi ma def ci yow cër yi ma la jox lu rëy na lool waaye nag jaam yi mënuñ koo xam fii ci kaw suuf waaye suñ demee ba yowmal qiyaama ba àjjana taxaw safara taxaw jahannama taxaw sirat taxaw lu bax taxaw lu bon taxaw texe taxaw texe di taxaw taxaw ci la ci ñi xamni man ya man yàlla defal na la gëne lu reuy lool la bëgg feñal tay ji jii romp répondre la ñaari questions yi mujj ci bir euh euh aljanna incha allahu taala ndax euh aljanna lépp tontu nañ ci yaakaar naa la ca des bariwul la ca des yëpp ay détail la rek waaye trent trent audio yi trente direct yi képp ku ko suivre aljana dara dootu la ci réer ndax aljana il faut tamit ngeen xam ni bokkut ak sawara safara lu muy gën a wàcc lu muy gën a euh, suufe rek di gën a tàng aljana kon safara ab turu la aljana nag macha allah lu muy gën a yëkkati rek di gën a baax moo tax soo xoolee euh, sëñ Ibrahima Diop mën nañ dem incha allah soo xoolee aljana yi muy jannatu naim di jannatu adnin di jannatu aaliya di jannatul mawa di daaru salaam di daarul qaraar di jannatul xuldi di jannatul firdaws di illiyin ñoom ñii ñëpp macha allah il faut ngeen xam ni aljanna ay étape la ay niveau niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 7, niveau 8. au niveau du euh, du du huitième niveau 8 hein, huitième niveau so passé suis euh, firdawsu al aala Bobu, nga xamanteni, ni yonenti bi dëkk moy aliyina. firdawsu bobu, na ngeen xamni après firdawsu rek lan mo ci top? lan mo top ci Firdaus après Firdaus juste après Firdaus, ci kaw firdaws comme sama mbaxana mi hein, après sama bop bi lu ci top mi kon après firdawsu nii mooy fii fii mooy arsh arsh waaw trône yàlla bi moo nekk foofu kon léegi may yàlla yi day wàcc juge ci arsh dal ci firdawsu bi yonent bi nekk sallallahu alayhi wa sallam su jugee ci firdawsu léegi nag séddal ko nag ci juróom-ñaari ajjana yi ci des mooy jannatu naim jannatu adnin jannatul mawa daaru salaam daarul qaraar qaraar jannatul xuldi jannatul aaliya yii noonu la il faut que loolu ñu xam ko disposition bi noon la amee ci ngay xamee ni ki gën a jege yàlla ci mbindeef yi ci àdduna mooy Seyduna Muhammad waaye su ëllëgee yoom qiyaama ka gën a jege yàlla ci mbindeef yi mooy Seyduna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam d'accord loolu du leere rek ma dem léegi dem bu gaaw waaw sëñ Habib maa ngi lay bàyyi xel bu baax maa ngi lay ñaanal yàlla yalla na yàlla woyofal la sëñ Habib mbay yal na yàlla woyofal la yal na yàlla saafara la yal yàlla delloo sa jàmm ba nga delluwaat ci sa liggéey missionnaire nga liggéeykat nga gaynde yu bari yu bokk ci daayira bi yaa leen indi yaa leen xamal maam alaaji yaa leen xamal yonent bi yaa leen xamal Cheikhu Tidiane jërëjëf mbay yàlla na yàlla dolli la jàmm maa lay bàyyi xel déggante ñu waaye maa ngi lay ñaanal fu ma toll yàlla seede na lool jërëjëf mbay ma ngoog léegi loolu su leere rek jeex na donc aljana un deux trois quatre cinq six sept huit huitième aljana après juste huitième aljana aras moo ca topp léegi leer na d'accord ñu dem safara yi 1 2 3 4 5 6 7 8 lu muy gën di gëna bon aljana lu muy gën di gëna bax ta aljana bu ci nekk aljana euh, 1 2 moko gëna neex 2 3 ko gëna neex 4 nonu bam ag aljana 8 8 mooy fa yonent bi dekk sallallahu alayhi wasallam yalla ci yalla boole. léegi kon al firdaws il faut ngeen xamni kon moy sommet bi firdaws kon jappal ni mo ngi commencé fi wax sidratul muntaha hmm, l'arbre du lotus fa lay commencer ba ها فوف لي جوغي با تا كاو سوكو ديفي ko defee lañ لا لول نوتو لين كو ني ko ñu dem ابري nag après ci léegi firdaws ci il faut ñu xam organisation firdaws pour comprendre la dimension la haute dimension du prophète mohammed sallalahu alayhi wa sallam ndax firdaws ci bir firdaws dafa am lu ñuy wax al ghuraf aljana firdaws Euh, koñ bi ñuy wax iliyina fa yonent bi dekk sallallahu alayhi wa sallam euh, soo duggee rek fi ngay jot moy Al ghuraf al ghuraf moy les appartements moy xurfatun jamu ghuraf ah, ah, waaw waaw moy mufrad ba bok moy singulier wu euh, ghuraf ghuraf moy les appartements d'accord ñu dem après après ghurafi ghurafi amna ñom lu nekk sen kaw au niveau des ghuraf amna lu ñuy wax al mooy les niveau jàpp leen loolu léegi al maqaamaat du jeexee am na beneen niveau guy ñëwaat ñoo ngi ci biir su ba tey ñoo ngi ci àlliyéena ba tey am na beneen niveau guy ñëw comme la moom la ñuy wax al maqaam al mahmud al al maqaam al mahmud al maqaam al nag mooy bërëb bi nga xamante ni euh, bërëbug cant yàlla bërëbug ku ñu sant ga mooy rasulullahi sallallahu alayhi maqaamal mahmoud nag dafa séddaliku ñaari pàcc ñaari néeg moo ko séq benn bërëb la bu am ñaari néeg benn néeg à gauche benn néeg à droite benn néeg bi moom la ñuy wax alwasila alwasila kan moo alwasila néeg bi à à à à droite à à droite alwasila à gauche kan moo fa nekk ban néeg moo fa nekk mooy alfadila alfadila kan moo fay dëkk mooy sayyidatuna Maryam waaw kon euh, euh, nañ jàpp rek ne al wasila moo nekk à droite al fadila moo nekk à gauche nañ jàpp loolu léegi ñu demaat mbokk yi déglu leen bu baax yéen ñiy bind maa ngi leen di ñaan ngeen noté bind leen ko en commentaire su ko defee kenn du réer ñi déggul français tamit en attendant may pare ñoom it ils sont dans le bain quoi dañu ils sont au diapason de ce qui se passe ma ñu dem léegi wax naa leen ne leen aljana un le deux trois quatre cinq six sept huit ci huitième aljana ba yonent bi dëkk nag koñ ba mu dëkk moom la ñuy wax illiyiina illiyiina su euh, euh, euh, boobu noonu nag ma leen di wax dafa organiser wu soo duggee soo dugg soo ne caraax biir firdawsi fa ngay njëkk a jot niveau ba ngay njëkk jot quartier ba ngay njëkk a jot ah niveau boog niveau niveau jàppaleen niveau du quartier niveau étage ba ngay njëkk a jot moom la ñuy wax al xuraf mooy les appartements foofu ñan ñoo fay dëkk na Seydina Aboubacarine Siddiq mooy kilifa ñoo fay dëkk gaa yu baax yëpp saalixiina yi ak saxaaba yi ñooy dëkk foofu d' accord lan moo topp ci alxuraf waxoon naa leen li ci topp mooy al makamaat mooy les niveau kon deuxième niveau bu firdawsi al maqaamaat moo fa nekk ñen ñoo fay dëkk mooy ulul azmi min rusuli juróomi yonent yi ëpp doole euh, ñeenti yonent yi ëpp doole ñoo fay dëkk Seydina Moussa Seydina Ibra Seydina Ibrahima moo jiitu Seydina Moussa Seydina Nuux ah ak Seydina Isa alayhi salaam ñoom ñooy dëkk foofu ci al maqaamaat léegi nag al maqaamal mahmud nag foofu la rasulullahi sallallahu alayhi wa di dëkk néeg ba yonent bi euh, euh, euh, appartement ba yonent bi dëkk nag dama leen appartement la boo xam te ne dafa am ñaari néeg yu nekk ci ci wet gi kii ci ndeyjoor kii ci càmmiñ bi nekk ci ndeyjoor bi boobu na Asiya moo fay dëkk Asiyatu buntu Muzaahim waxoon nañ leen ne leen ñeenti jigéen ñi gën ci àjjana ci àdduna ci ak ci àjjana mooy Fatima ak Asiya ak Mariama ak Khadija Asiya moy dëkkee ben nek bi benen nek bi ci euh, chamoñ bi kan mo cay dëkk sayyidatuna Mariama ndax ñom du ëllëgë yawmal xiyaama Mariam day nek soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam Asiya day nek soxna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam donc aljana ni la ko yàlla organisé loolu moo tax mbokk yi lii du ku ko dégg à partir d'aujourd'hui di nga comprendre le sens de de cette prière qu'on fait après le azan après l'appel à la prière mooy lan allahumma rabba hadihi daawati tamma déglu ko wasalaati alqaima aati muhammadan al wasila gis nga wasila dikk na mooy néegu asiya <laughs> noté leen loolu mbokk yi wasila mooy néegu asiya aati muhammadan al wasilata wal fadila fadila mooy néegu mariama sayyidatuna mariama allahu akbar nan dem aati muhammadan al wasilata wal fadila وابعثه المقام المحمود wala wabaasu maqaaman mahmudan allazi waadta wala al maqaam al mahmud mooy këru rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon yàgg ngeen a dégg suñu noddee ñu ñaan-ñaan bi waaye mën naa am xamoo leen woon lan mooy wasila am na ñu koy firee lu nekk waaye wasila fii mooy néeg bi Asiya war a dëkk ëllëg noonu la tudd di ngeen dégg wa aati muhammadan al wasilata wal fadila fadila yéen yàgg ngeen koy dégg way tey jii na ngeen xam ne mooy néeg bi mariama di dëkk sayyidatuna mariama léegi aljana ngoog yaakaar naa loolu kenn dootu ci am benn question boo ñuy laaj yal na yàlla boole ñu dimbali bi jaahi saydina muhammadin salaa salaam kon léegi ci tënk mbokk yi nañu dem na ngeen xam ni aljanna firdawsu moo fa gën firdawsu dafa séddliku ay suite am na suite boo xamante ni c'est la suite des compagnons ñan ñoo fay dëkk Seydina Aboubacar moo fay mooy kilifa ga ñan ñoo cay topp ab euh, euh, euh, Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Alioune Ibn Abi Talibin ñan ñoo ca topp al muhajiruna ñoo cay top mooy ñi jugewoon Makka dem Madina ñan ñoo cay topp al ansar mooy ñi juge woon mooy waa Madinatul Munawwara léegi lan moo ca topp al xuraf al maqaamaat maqaamaat ñan ñoo fay dëkk Seydina Ibrahim moo fay dëkk Seydina Moussa moo fay dëkk Seydina Isa moo fay dëkk Seydina Nuux moo fay dëkk léegi lan moo nekk ci kaw al maqaamaat mooy al maqaam al mahmoud al maqaam al mahmoud ku fay dëkk rasulullah à droite Seydatuna Asiya à gauche Seydatuna Mariam ñooy dëkk foofu loolu yaakaar naa kenn dootul am question bu jëm ci aljanna aywa léegi xam nga waxtaan waxtaanoon naa leen ci du nan la ñuy duggee aljanna loolu ba leer na ba noppi léegi nag dugg nañ aljanna ba pare benn bis nag dañuy toog ci biir aljana rek mbokk yi yàlla buñ ko wutee ñun ñëpp yàlla nañ ci yàlla boole boole ci suñuy njaboot ci suñuy mbokk dañuy toog biir aljana ba ci àgg rek qu'est-ce qui passe passé nee nañu kenn ku nekk fa nga toog su la fekkoon ngay lekk wala mu fekk la ngay dox wala mu fekk la ci suufu garab wala mu fekk la ci sa kawlal wala mu fekk la foo mënti nekk ci at ci biir aljanna nit ku nek chaque habitant du paradis tous les habitants du paradis da ngay tok ba càgg rek li nga li nga li nga do bu dee kudd la wala kaas la wala ap lekk la wala ap naan la lekk nga day mujj ko ben keuyit keuyit bobu day nek une invitation d'honneur da'watu sharafin lan mo ci lan lañuy bind lan lañuy bind ci ci invitation bobu mbokk yi lan lañuy bind ci invitation bobu yow da ngay tok ni rek comme ni nga togué ni loo mënti laal loo mënti jege rek da gis rek écran moom mooy mujj doon benn kayit bu rafet bu bu taaru mooy taxaw ci sa kanam ñu bind ci lan rabbuka yaduuka li ziyaratihi allahu akbar rabbuka yaduuka li ziyaratihi rabbuka sa borom muy allah yaduuka moo lay invité li ziyaratihi pour nga rendre ko visite allah allah allah allah allah allah xoolal fii àdduna rek waaw diw moo ma invité diw moo ma invité reer diw mooma ma invité King Fat Palace diw moo ma invité Méridien diw mooma ma invité Radisson Macky Sall moo ma woo Ablaye Macky président Ablaye Wade moo ma invité man damay lekkandoog diw man damay toogandoog diw buuru Makka mooma ma invité buuru Maroc moo ma invité xoolal ndam yi dañ koy puukarewoo di ko ndamoo di di ci bëgg rasulullah yi rek su la invité woon doy na waaye tey jii kan moo la invité boroomu rasulullah yi mooy yàllay rasulullah yi mooy lan rabbuka yad'uuka li ziyaratihi sa borom moo lay woo ngir nga ziyaar ko allah allah wallahi wallahi lii lii la ñu alaaj Mouhamad Ndiéguène seen maam ji daan wax ne fexe leen ba bu kenn tardé doxantu boobu doxantu bi laa leen di expliquer nii ni muy demee su ko defee waa àjjana ñëppay jotandoo en même temps genre mailing lay doon ñoom information yi xam na li may wax mailing lay doon ñëpp a koy jotandoo su ko defee waa àjjana yëpp dañuy fàq kenn ku nekk génn sa kër génn sa néeg fan la ñuy jubali ca saal ba leen yàlla war la war a recevoir yi allahu akbar su ko defee nag suñu ñëwee ci saal bi saal bu rafet lay doon saal bu organisé lay doon saal bu taaru lay doon mu am nag tabaarakallaahu jaami yàlla yëpp yi waa àjjana yëpp toog yàlla ñu ci yàlla boole mbokk yi allahu akbar

kay jëkk toog mooy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su toogee ba noppi ne Ibrahima toogal Ibrahima toog mu ne Moussa toogal Moussa toog mu ne Isa toogal Isa toog mu ne Nuux Nuux toogal Nuux toog allahu akbar su ko defee Seydina Daawuda moom mooy jàng sóoratul mulki rasulullahi jàng sóoratu yaasin allahu akbar allahu akbar allahu akbar su ko defee sama borom ndeysaan euh, daal ne sama borom daal ne yéen sama jaam yi xolal yàlla ngay wax ak jaam yi waaye kàddu gim leen di njëkk a wax mooy jàmm waaw kàddu gi mu leen di njëkk wax mooy jàmm moo tax jàmm yàlla nañ ko yàlla may yàlla nañu yàlla may jàmm àdduna ak jàmmi àllaaxira إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام سلام قولا من رب رحيم الله أكبر سلام نيو سلام جم سلام خيول سلام waxtaan salamun dalal salamun teranga, salamun mucc salamun ñak coono salamun ñak xalbu naqari salamun ñak salamun salamun ñak fitna qawlan wax la jo xamanteni min rabbin rahimin mo ngi joge ci borom bi nga xamanteni tey ngi sol bubbam mi ñi wax rah eh, eh, eh, min rabbir rahim rabbur rahim bubbam mom mom la sol tay. rabbun rahimun tur wo mom la yalla def tajalli di wax ak jami ba tey yàlla feeñagul de boobu yàlla yàlla génnagul de tajalli la def ci ñaari turom yooyu muy rabb ak rahim allahu akbar ndax su ko defee su su su su su su defe su deful noonu musibaam te gis nga salaam la njëkkee pour kenn bañ a rakkaaju te tajalli kese la moom moom ci boppam génnagul dina génn léegi sama borom lu muy njëkk a wax saluuni ma shi'tum saluuni ma shi'tum demandez-moi ce que vous voulez ce vous rêvez saluni ma shi'tum déggal waa aljana aljana ndekete bërëbu ngor la déggal li ñuy ñoom li ñuy tontu yàlla xafarta wa satarta wa këffarta wa anjayta wa adxaltana aljanna waa aljana lii la bokk ñoom ñëpp àndandoo en cœur wax ko yàlla xafarta yàlla jégal nga ñu sunuy bàkkaar satarta suturaal nga ñu sunuy musiba sunuy défaut kafarta balaat nga ñu effacé nga suñuy bàkkaar yëpp wa an jayta musal nga ñu ñëw yow yàlla wa adxaltana aljanna te dugal nga ñu aljanna kon ñun luñ soxlaati waa ñun lu ñu bëggati ñun yàlla bëggatul dara yàlla ne leen yéen xamoo leen ni dama leen a suturaal feeñal leen seen li ma leen wax nii yëpp ngir ngeen gën a xam teraanga gi ma leen defal waaye yéen comme bëggoo leen dara mais laaj leen boroom xam-xam yi ñoom ñu laajal leen gis nga moo tax borom xam-xam day am cër ba biir aljanna te xam-xam bi ci njëkk mooy nubuwa prophétie moo cëpp doole wilaaye soog a dikk dégg nga yàlla nee na fas alu ahla dikri in kuntum laa taalamun ñoo ngi biir aljanna de sama borom mooy wax ak jaami ne yéen comme amoo leen dara leen laaj doo leen laaj si ñi ñi borom xam ci yéen ñoom ñu tontu ñu laaj ma ñoom fas alu ahla dikri in kuntum laa taalamun fekk sama borom ci dem am na lu mu dencal jaami loolu la bëgg ñu ñu ñaan ko ko allahu akbar moo tax ñaan am na solo ba biir aljanna ñaan dafay dox nee na ñoom ñëpp ñu dajaloo dem ci Seydina Adam ne ko Adama waxal ak sa borom dugg nañ aljana ba poro ba pare yonent bi ne Adama bismillah Adama waxal ak sunu borom Adama ne salullaha rida li kay laa yuxrijakum min aljanna allah allah wa ridwanu min allahi akbar lii moo tax góor yàlla yi di wax ne bëgguñu aljana jaamuñu yàlla ngir bëgg aljana jaamuñu yàlla ngir ragal sawara waaye dafa am lu ñu bëgg leneen lu nekk ci biir aljana lu gën a kawe aljanna ak ak gën a gën a kawe sawara mooy lan ngërëmul yàlla wa ridwanum min allahi akbar ngërëmul yàlla moo gën a kawe lépp xoolal mu ne salullaha laaj leen yàlla aadamaay wax de salullaha laaj leen seen borom mooy yàlla arrida ngërëm li kay la laa yuxrijakum ngir mu bañ leen di génne min ti ci aljanna ndax man mii nekkoon naa aljanna waaye damaa amuloon ngërëm moo tax yàlla wàcc ma ci suuf te yàlla kenn yilifu ko kenn moomu ko lu ko neex mu def déggal ñoom ñëpp ñu daal yàlla may ñu ngërëm yàlla ne leen gërëm naa leen ngërëm loo xamante ne mer dootu ci topp allahu akbar gërëm naa leen gërëm goo xamante ne mer dootu ci topp allahu akbar yàlla nañ ko yàlla defal yàlla nañ ko yàlla defal mooy lan radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman xashiya rabbahu ku ragal yàlla topp yàlla def rasulullahi muy sa kilifa soo dee incha allah yàlla dina la gërëm yooyu da ngay mujj gërëm yàlla ñun de gërëm nañ yàlla balaa sax dee gërëm nañ ko fii yàlla daal ne saluuni saluuni saluuni ma shi'tum yàlla moo ngi wax ne ñaanaat leen ma loo leen wa aljana nako yalla djegal nga ñu suñu bakkar muccel nga ñu sutural nga ñu effacé nga suñu ñaawteef ba nopi duggal ñu aljana ba nopi nga tek ca gërëm ñu wa yalla ñun luñuy bëggati yalla ne leen nopi leen fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun so leen xamul laaj leen borom xam xami ñu laaj waxtan ci seen biir ñu jox sayyidina musa kérok mo nek mo nek porte parole wa aljanna ñu mu dal di ñaan yalla mu daal di wax ne yéen waa aljana salullaha an nadara ila wajhihi alkarim salullaha an nadara ila wajhihi alkarim salullaha an nadara ila wajhihi alkarim salullaha laaj leen yàlla ñaan leen yàlla an nazara xool ila wajhihi alkarimi jëm ci jëmmam ju tedd ji moom yàlla mooy وجوه يومئذ ناظرة إلى نب إلى ربها ناظرة yàlla daal nag dindi kiiraay yépp démb tajil tajal lii la woon tey jii nag zaatam mooy taxaw nag moom yàlla subhanahu wa taala ñu gis yàlla nag dëggi dëggi nag gis gis goo xamante ni kenn dootul xam lu mu doon su ko defee tabaarakallahu nga gis nag jaam yi da leen di def xaal ñu am bànneex boo xamante ni da leen na fàtte loolu lépp lu ñu mus a mos ci lekk ak naan seen visage yi nekkoon lu weex ba ci yàgg nekk lu belli ba ci yàgg mu nekk lu nay tey ji beneen visage seen visage yi day soppeeku ci biir aljanna ndax jàkkaarloo gin jàkkaarloo borom bi tabaraka wa taala xoolal rek soo gëjee gis sa soxna ay at ba jàkkaarloog moom mbégte mi ngay am soo gëjee gis sa doom soo gëjee gis sab sëriñ soo gis gëjee gis sab soppe xoolal gaa yi duñ gisee seen star yi fii ci kaw suuf léeg ñu xëm léeg ñu dee léeg ñu am am def syncope léeg ñu def lu nekk waaw allahu jalla wa ala mi nga xamante ni mooy borom jaam yi mooy dindi kiiraay yëpp ñu jàkkaarloog moom su ko defee ñëpp daal daanu daanu xëm daanu jël su ko defee allahu akbar nga gis nag ci la ku nekk nag ni sa doole toll ci nga gisee yàlla subhanahu wa taala ci biir aljanna yonent bi nag moom day continuer di gis yàlla gis gu dootul dakk ñan ñoo cay topp Seydina Ibra Seydina Ibrahim Seydina Moussa Seydina Aïssa Seydina Nuuxun ñoom ñoo cee topp ci doole ci lu ñuy bari lu ñu gën a gis yàlla ñan ñoo cee topp saxaabatu yoneen yonent yi alayhimu salaam ñan ñoo cey topp saxaabatul kiram alayhimu salaam ñan ñoo cey topp ah, ah, ah, almuhajirun wal ansar ñan ñoo cey topp julit yi nga xamante ni kenn ku ci nekk ñii dañuy gis yàlla bis bu nekk benn yoon ñii suba ak ngoon ñii une fois par semaine ñii une fois par weer ñii une fois par at noonu lañ koy gisee kenn ku ci nekk di nga gis yàlla di ko contempler ci ci euh, sa dooleeg euh, cër ak sa doolee ragal yàlla léegi nag suñu gén suñu paree ci jotaay bii ba gaa yi xëm ba ko dañuy génn buntu aljanna déglul suñu génnee buntu aljanna euh, jot buntu saal bi ñu nekkoon qu'est-ce qui va se passer duñ génn rek dañuy dajeek benn marché moom la ñuy wax suuqu suwar noté leen loolu en commentaire suuqu suwar le marché ah des formes foofu noonu ay vitrine la yu rafet rafet rafet moo nekk ci buntu aljanna ay vitrine yu garaaw léegi vitrine yooyu ay jëmm fa nekk ay jëmm léegi nag kenn ku ci nekk ci ñun ci mbindeef yi dugg biir aljanna ba noppi jëmm bu la neex rek da ngay doo doo doo xoolee jëmm bi rek bëgg ko yow jëmm jooju mooy nekk sa yaram jëmm jooju mooy nekk sa yaram da yor form kooku da yor forme jëmm jooju nga gis waaw ñoo ngi dajee ci marché boobu nga xamante ni euh, euh, foofu ay jëmm rek a fa nekk waaw kay léegi euh, am na ñu ma doon laaj ne ma su ëllëgee yow ma xiyaam ndax ñii ñu ñu mel nii noonu la ñuy mel déedéet ay nit la doon yow Mouhamed Dia da ngay nekk Mouhamed ja yow Tafsir Tamsir Diop da ngay nekk Tamsir Diop yow Ibrahima Diop da ngay nekk Ibrahima Diop ah yow Mbaye Fall Ndiaye da nekk Mbaye Fall Ndiaye waaye xam nga yow fi mu ne nii Mbaye Ndiaye yaa ngi gis sa jëmm mais gisoo sa yowmal xiyaam nag suñ duggee biir aljana c'est le contraire ruu yi la ñuy gis ni jëmm day réer ci biir ci biir ruu yi jëmm yi day réer ci biir ruu yi comme tey jii ni ruu yi ci biir jëmm yi su boobaa comme ni ma leen ko waxee woon ñun ñooy gis jinne yi waaye jinne yi dootu ñu gis léegi nag su suñu paree ci lii juste juste nag am na benn miraas bu fay am wax naa leen ko démb miraas héritage bu fay am miraas lan mooy miraas ma mooy est-ce que xam ngeen mbokk yi ne képp ku am kër safara képp ku am kër safara am nga kër aljanna kon waa aljana yi kenn ku ci nekk am nga benn kër aljana boo bàyyi ci biir aljanna dégg ngeen wax képp ku dugg aljana tamit toj nga sa kër ca sawara dégg ngeen <laughs> ku dugg aljanna toj nga sa kër ci safara waye ku dugg safara sa këru aljana du toj ndax këru aljana du toj de ngeen wax ci su ko defé nak légui kon aljana le nombre de personnes ya nek ci bir ak ginné ya nek ci bir safara ya le nombre de personnes ak nombre de jinne ya nek ci bir safara ñu leen di bëggal kon nombre de nombre de wa safara moy nombre kër ya dess ci bir aljana d'accord accord racine su ma nga bindal ma li bam lèr pour gaay comprendre ko nombre de kër yi nekk safara nombre de personnes yi nekk safara ak nombre de jinne yi mooy nombre de kër yi des ci biir aljana te kenn du fa dëkk ndax waa aljana ñoom seen i kër lañ jël léegi kon lu toll ni nombre yi nekk biir safara ci ay nit kër yi toll noonu moo nga biir aljana kenn dëkku ca kër yooyu nag yàlla da koy jël séddalawaat ko waa aljana yi mooy miraas moo war nekk ci biir aljanna allahu akbar kon aljana am na miraas aljana am na miraas miraasu aljanaa ngi nii mbokk yi ah, waaw miraasu moo ngi nii mbokk yi miraasu ajjana moo ngi nii mbokk yi kër ya desoon te waa ay waa safara waroon koo dëkkee ci aljana te dëkkuñu fa kër yooyu dañ koy séddale waa aljana su ko defee nag moo ngoog ñoo ci mbégum yàlla ñoo ngi ci ngërëmul yàlla ba faw léegi nag am na ñu bëri dañ ma doon laaj ne ma waa seriñ ajjana bu dañ faa dëkk ah waa ñu fa war faa dëkk noonu rek di dem dinañ toog ba càgg comme fii àdduna da ngay lekk ceeb ba mu sàppi la wala nga lekk cere ba mu sàppi la léeg-léeg euh, foo yàgg dem sax da lay mujj a sàppi yére boo yàgg sol mu sàppi la man leen àjjana yàlla nee na foofu amul coono amul sàppi le terme sàppi le mot sàppi la notion sàppi amul sàppi amul aljana àjjana dara du la sàppi ah kullama ruzaqu ruziqu euh, fiha min thamaratin rizqan qaalu hada alladi ruziqna min qable wa utu bihi mutashabihan ba aaya ba jeex waaw kama aw kama qaal ah. comme ni ko borom bi ko wa taala waxee lépp lu ñu lekk rek gu beneen bu ñëw euh, même fruit bi la war a doon wala wala même même même même ñam bi mais gu yi day wuute ba du dara du la ba dara du la sàpp foofu kenn du fa nelaw loolu tamit na ngeen ko xam waa ajjana amul nelaw aljana amul nelaw personne ne dort ajjana parce que nelaw day indi coono nelaw bu yàgg day indi coono bon day indi ay feebar ajjana amul nelaw kenn du fa nelaw waaw waxna naa leen ko démb waaw kon mbokk yi ya ngok yalla yàlla nañu yàlla boole dimbali jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa yalla yàlla nañu yàlla yóbbu ñun ñep donc chers frères en c'est un plaisir de vous retrouver à ce direct spécial ça à ce cette euh, ce live spécial de clôture des 30 questions de la série de 30 questions qu'on a, euh, qu'on a, auquel on a essayé de répondre. Aujourd'hui, c'est la clôture. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous demandons à Allah de nous bénir encore et de faire de sorte qu'on puisse euh, habiter au paradis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Euh, qu'il nous pardonne nos péchés, nos erreurs et nos manquements qu'il nous donne aussi la force de pouvoir toujours l'adorer, de le suivre, de suivre son prophète, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Euh, alhamdulillah, on a répondu à 30 questions. Aujourd'hui, on en est à la 30e, masha'Allah, mais c'est une question hybride, bicéphale, qui comporte deux réponses. Masha'Allah, la première réponse concerne, Alhamdulillah Rabbil Alamin, euh, le paradis et son organisation. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle Jannatu Na'im, comme paradis, jannatul Adnin, jannatul Aliya, Jannatu Ma'wa, salam, Darul Qarar, Jannatul Khuldi et Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus, en réalité, c'est à partir de ce qu'on appelle Sidratul Muntaha, l'arbre du lotus, et à partir du Sidratul Muntaha jusqu'à Arash. Le paradis se trouve là-bas. Mais les huit paradis sont superposés de 1, de, de, à 8. Et au huitième paradis, c'est-à-dire Al-Firdaus, Al-A'la, c'est là où va habiter le prophète Mohammed euh, Al-Firdaus, Al-A'la s'organise ainsi. Quand tu rentres dans Firdaus, tu tombes juste ce qu'on appelle Al-Ghuraf. Al-Ghuraf, c'est les, appartements. Et ces appartements sont habités par euh, Sedna Abu Siddiq, ensuite Sedna Omar, Sedna Osman, Sedna Ali, et les Muhajirin, ceux qui ont émigré de, de la Mecque vers Medina, Ensuite, les Ansar, ceux qui ont reçu les gens de Médine, de, la Mecque. Ensuite, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pieux et les musulmans qui auront la chance d'habiter Firdaus. Je précise bien. En haut de Al-Ghuraf, les, les, appartements, il y aura Al-Maqamat, les niveaux. Ces niveaux sont habités par les quatre prophètes les plus puissants. Sedna Ibrahim, Sedna Moussa, Sedna Aïssa et Sedna Nuh, avec leurs euh, frères prophètes. Et en haut de Al-Maqamat, les niveaux, il y a ce qu'on appelle Al-Maqam Al-Mahmoud. Et ce Maqam Al-Mahmoud, c'est là où va habiter le prophète Mohammed. À la droite de Al-Maqam Al-Mahmoud, il y aura la chambre de Asia. Cette chambre, c'est ce qu'on appelle Al-Wasila et à la gauche, à gauche de la chambre du prophète, de, de, l'appartement du prophète, je veux dire, il y aura la chambre, la maison, l'appartement de Seydatuna Mariam qui s'appelle, qu'on appelle Al-Fadila. Donc, quand on fait le doua après l'azan, ce doua, dans ce doua, on dit Allahumma rabba hazihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadan al-wasila, ce wasila-là, c'est la chambre de ou al Fadila, ce Fadila-là, c'est la chambre de Mariam. C'est la maison de Mariam ou bien la chambre de Mariam. Ce Maqam al-Mahmoud, c'est là où va habiter le prophète. C'est la suite mohammedienne. Ensuite, il y aura la suite prophétique des prophètes. Il y aura ensuite la, suite des Sahaba euh, et la suite des musulmans en général. Il faut dire que quand on rentrera au paradis, qu'Allah nous donne cette chance, <coughs> on aura une invitation divine. Cette invitation viendra d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et chacun retrouvera, verra, euh, que chacun verra son invitation, une invitation devant lui, quelle que soit la position dans laquelle l'invitation le trouve. Et c'est mentionné sur cette invitation. Rabbuka ton Seigneur t'invite à lui rendre visite. Masha'Allah, quelle invitation. Et tous les habitants du paradis sortiront en masse, ensemble, pour se diriger dans le, dans le hall, dans la salle réservée à cette invitation. Et dans cette salle, il n'y aura que cinq chaises, cinq fauteuils. Le premier est euh, occupé par le prophète Sayyidina Muhammad. Et il donnera l'autorisation à Sayyidina Ibrahim d'asseoir, à Sayyidina Moussa de s'asseoir, à Sayyidina Isa de s'asseoir et Sayyidina Nuh de s'asseoir. Donc il y aura cinq chaises et ces cinq chaises seront données à ces cinq prophètes. Et Allah va dire Salamun qawlan min rabbin rahim. comme il nous l'a dit dans Sourate Yassine inna ashabal jannati al-yawma fi shughlin fakihun hum wa azwajuhum fi dhalalin 'ala al-ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim donc salam la paix qu'Allah nous donne la paix ici et dans l'au-delà salamun qawlan min rabbir rahim Allah va décréter la paix va nous adresser la paix nous les habitants du paradis et il va nous dire Salouni tout, demandez-moi ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Et les gens du paradis diront, diront en, cœur wa wa wa wa al-jannah. Tu nous as pardonné, tu nous as couvert de ta miséricorde, tu as effacé nos péchés, tu nous as sauvés et tu nous as faire entrer au paradis. De quoi avons-nous besoin maintenant Allah, il dit Demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Et sur le champ, l'assemblée donnera la parole à Sayyidina Adam qui va demander à Allah quelque chose. Il demande à Allah la sa satisfaction. Il, il, dit aux gens du paradis, demandez-lui d'être satisfait de vous. Demandez-lui d'être content d'être satisfait de vous pour qu'il ne vous ressorte jamais du paradis. Parce que moi, j'ai été un locataire du paradis, mais je n'avais pas. La satisfaction divine, c'est pour cela que j'ai été euh, parachuté sur terre. Ensuite, Allah, il dit encore, demandez-moi ce que vous voulez. Et les gens du paradis vont lui dire encore, mais nous, tu nous as pardonné, tu nous as couvert de, de ta miséricorde, tu as effacé nos péchés, tu nous as sauvés, tu nous as fait rentrer au paradis. En plus, tu es satisfait de nous. Tu es satisfait de nous parce qu'Allah, il va leur dire, je suis satisfait de, vous et à partir d'aujourd'hui, je ne me fâcherai plus contre vous. Qu'est-ce qu'on peut... De quoi avons-nous besoin encore Allah, il dit encore, Demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas et la parole sera donnée à Sidna Moussa qui va demander à Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, il va dire aux gens du paradis, Salullaha ar-nazara ila Demandez à Allah euh, de voir, demandez à voir, à le voir, demandez à le voir. Et là, Allah enlève tous les obstacles, les, euh, euh, les, frontières, toutes les frontières sont, sont, enlevées, toutes les, tous les voiles sont enlevés, tous les voiles sont enlevés, tous les paravents sont enlevés hein, pour qu'on puisse contempler la face d'Allah. Et en ce moment précis, tous les hommes oublieront tout ce qu'ils ont eu comme, comme, comme délice, comme plaisir auparavant. Et leur visage aussi, ça va changer. Ils vont avoir un autre visage parce qu'ils ont contemplé la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant Ils vont euh, tomber en transe. Ils vont tomber dans une situation, dans un état spirituel inexplicable. Et qu'est-ce qui va suivre À partir de ce jour, il y aura une sorte de barème qui va s'imposer pour la contemplation d'Allah dans le paradis. Le prophète sallam aura la chance et le privilège de contempler Allah sans limite, donc de manière perpétuelle et pérenne. Donc maintenant, tout le reste de la créature contemplera Allah subhanahu wa ta'ala selon euh, chacun sa foi et son degré spirituel. Certains verront Allah deux fois par jour, d'autres une fois par semaine, d'autres une fois par mois, d'autres une fois par an. Chacun le verra selon, selon son degré et son, sa station. Et les gens du paradis sortiront de cette salle bénie. Et quand ils sortiront, ils retrouveront ce qu'on appelle le souk soir. C'est un marché des euh, formes. Et il y a des vitrines euh, exposés et dans lesquels il y a des, des, des, formes. Chacun choisira la forme qu'il voudra. Et cela, chaque vendredi, il y a ce marché-là. Et chacun prendra la forme qu'il voudra, qu'il choisira euh, de, de, porter. Et je vous l'ai dit, euh, il y a un frère qui m'avait demandé, est-ce qu'on sera comme on est sur Terre Je lui ai répondu que les gens du... nous, sur Terre, on voit bien notre corps, mais on ne voit pas notre esprit, notre âme. Le jour où l'on rentrera au paradis, c'est le contraire qui va se s'opérer. C'est-à-dire qu'on va voir notre esprit, mais on ne va plus voir notre corps. Les djinns aussi, nous allons les voir, c'est eux qui ne vont pas nous voir au paradis. Donc c'est ça la disposition que Allah prendra pour que les gens du paradis soient dans les meilleures conditions. Et après cela, il y aura un grand héritage au paradis. Cet héritage-là, c'est quoi C'est qu'il y a chaque habitant de l'enfer, chaque locataire de l'enfer, chaque euh, occupant de l'enfer a laissé une de ces une maison au, paradis. Ces maisons-là, Allah va, les, va encore les distribuer en termes d'héritage aux gens, de, aux gens du paradis. Donc, dans le paradis, il y aura un héritage. Cet héritage, c'est que, toute personne qui habite au paradis a détruit, a démoli sa maison en enfer. Mais toute personne qui va en enfer, maintenant, a laissé, a laissé une maison euh, au paradis. Donc, ces maisons-là seront distribuées aux gens du, du paradis. Qu'Allah nous donne euh, une longue vie et, qu'il nous donne aussi la chance de pouvoir habiter avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète aussi qu'il soit content de nous et qu'il nous Allah subhanahu wa ta'ala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 rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous aide et nous assiste, Inch'Allah. Euh, à la deuxième, euh, au dixième, deuxième direct, nous allons donner la parole à tous les frères pour ceux qui veulent intervenir, ceux qui veulent parler, ceux qui veulent euh, poser des questions concernant le paradis, Inch'Allah. Nous attendons leur, leurs appels, leurs conseils, leurs orientations, mais aussi leur point de vue par rapport à ces 30 questions auxquelles on a, on a essayé de répondre, bien qu'on n'a on a pas bien répondu, mais on a essayé de répondre. Qu'Allah soit satisfait de tout le monde. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yangin Jeff, sopnan len yen ñep ngir jëm yalla